woon ak yéen bokk ci euh, prix bii ñu tuddee euh, entrepreneuriat numérique euh, féminin ki a ay dara lañ ci àndal alors ki tey nga fas jàkkaarloo ak ki nga xam ne ni moo di madame madame Rokhaya Solange Ndir moom nag mooy chef de service RSE bu Sonatel. exactement Pape Cheikh donc tey Sonatel dafa créer benn dafa am benn initiative bu am solo boo xam ne daf ko jëmale ci jàppale jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu entrepreneuriat boo xamante ne mais dafa dem ci wàllum TIC. donc tey ñu am. mooy xarala yu bees yi. exactement technologie comme on dit. voilà donc euh, ñu dalal tey euh, madame Rokhaya Solange Ndir bi nga ko mu responsable donc RSE Sonatel. Mhm. Euh, bonjour madame Ndir. alors lu ñu lay njëkk laaj tey mooy lan mooy prix Sonatel boobu de l'entrepreneuriat numérique. waaw euh, effectivement prix Sonatel de l'entrepreneuriat numérique féminin Sonatel moo ko lancé le 15 septembre et ça va aller jusqu'au 31 octobre inchallah euh, boo gisee prix boobu dans le cadre d'une stratégie de responsabilité sociale d'entreprise dafa am stratégie boo xam ne ñi ngi koy déployer pour encourager jigéen ñi nga xam ne ñi ngi jëngu ci entrepreneuriat pour ñu créer ay entreprises. créer mhm. ay structures ci domaine numérique. Mhm. donc loolu moo tax ren ñu déployer prix boobu. Mhm. te ñi ngi xaar ay jigéen ñu bare ñu participer si incha allah. Euh, am ngeen ay partenaires yu leen di accompagner ci événement boobu. waa effectivement am ñu ay partenaires yoo xam ne ñoo bokk ci écosystème numérique bi tey. muy ADPME muy CETIC muy euh, Jocolabs muy ONU muy euh, Optique Jigéen Tech entreprise yi nga xam ne tey ñoo nekk ci écosystème numérique boobu mhm. ñoom nañuy àndal pour déployer privé mais lan la ñuy gagné ci ci concours boobu noonu. waaw prix yi nag euh, effectivement euh, montant yi c'est assez conséquent premier prix bi c'est un montant de millions. ak benn yaa ko 10 millions effectivement. ak un an d'accompagnement euh, le deuxième prix c'est un montant de 5 millions troisième prix bi c'est 4 millions. donc xalaat nañ ni looy euh, dina encourager jigéen ñi pour ñu participer. incha allah jigéen ñi léegi baal ma de ñu ngi yëngu bu baax ci wàllu entrepreneuriat mais man bëggoon xam nan lay demee jigéen bu ibi table la rek noonu. créer entreprise am bu ndaw wala jigéen bu créer euh, ay site internet euh, dama bëgg a xam euh, ci nu mu gënee leer parce que bëri na ay jigéen yu ñuy seetaan bëgg a entreprendre wala di entreprendre boobu ba tey bëgg bokk ci concours bi soit yëguñu ko wala xamuñu exactement lu muy lu muy wund concours boobu. effectivement Pape Cheikh ni nga ko waxee jigéen boo xam ne entre am na entre dix huit et soixante ans. Mhm. am na nekk chef d' entreprise. entreprise boo xam ne day yëngu ci numérique. xaw ma ni nga ko ah, waxee ci wolof nag. voilà am na noo waxee ci wolof. numérique numérique waaw mooy jumtukaayu xarala yu bees yi ñoom ordinateur internet euh, ak affaire yooyu parce que man je pensais et on dit souvent avec kii ak euh, jigéen bu euh, ibbi taabalam sax entreprise nga yor mm-hmm. mën nga dem ba ibbi usine uul wala usine madd mm-hmm. mais bokkul ak entrepreneuriat boobu waaw volet boobu am na beneen programme boo xam ne ñu ngi leen koy jagal dina leen ci wax bu ci kalamee uh-huh. mais prix bi jigéen ñi nekk ci entrepreneur entrepreneuriat numérique dinañ ko jagleel donc pour participer que yomb na da ngay connecté wu internet. Uh-huh. da ngay euh, yónnee sa dossier orange. Uh-huh. point sisit point sn slash penf p e n f. d'accord donc je répète orange point sisit point sn slash penf p e n e boo ci connecté wu rek ji nga gis formulaire bi ak document yi nga war a yónnee. d'accord pour ñu jël sa candidature. d'accord mais lu tax jigéen ñi. lu tax jigéen ñi. waa jigéen ñi kii yaa ni nga ko xamee jigéen ñi tey euh, ñi ngi représenté 50 pour cent population sénégalaise te macha allah dañu xarañ. entrepreneuriat bi ñu ci waaw dañu bëri <laughs> te xarañ. waaw oh, mais arrêté te bëgg a ah. defanteeg góor ñi waaw. développement rek la parité xaw ma carité waaye en tout cas jigéen ñi bëri nañu. parité parité boobu ngay wax sax Sonatel ñi ngi ciy yëngatu. parce que ñu programme bu tudd Hifoshi. Mhm. boo xam ne ONU Femmes. moo koy déployé pour seet naka la góor yi di jàppalee jigéen ñi. donc comité direction. union bu Sonatel signé na ko il y a quelques jours. Mhm. et direction bi ci boppam dafa engagé wu pour que à horizon deux mille vingt. Mhm. Sonatel am parité c'est-à-dire cinquante pour cent jigéen cinquante pour cent femmes. Mhm. Euh, góor pardon. voilà ñu xalaat ni xëy na TFM dina. <laughs> expo loolu moo lay wan ñoom. jigéen jigéen ñi rek ñu leen soxal. nee na 50 pour cent jigéen 50 pour cent femme. fàtte góor ñi. dañoo gën seen teno tegi voile wala lu mu non ñoo ko bokk. waaw yéen ay ànd parce que je reste convaincu que seen càmmin yi ñu ngi leen ciy dimbali. bu baax euh, da nga lim léegi ci seen i partenaires jigéen teg euh, ñoom gis nañu concours yi nga xamante ni ñu ngi koy organiser ay jigéen di créer ay plateformes ci euh, internet bi di créer ay applications ci internet bi et qu'on se rend compte euh, que yaa duñu bàyyi ñu fenn que jigéen ñi ñu ngi gën di góorgóorlu surtout euh, ci wàllu nouvelle technologie yooyu noonu di créer ay mbir yoo xamante ni d'habitude góor ñi lañ doon gis ñu koy créer ci internet bi. exactement Pape Cheikh jotoon nañ euh, daaw je pense que ci siw yeewu leen ci wàllum santé. Mm-hmm. ay jigéen yoo xam ne dañu créer benn application boo xamante ne dafay jàppale les femmes enceintes. Mm-hmm. ci maternité yi pour rang yi bañ a yàgg pour ñuy mën a suivre seen carnet de vaccination yeeg yooyu. te mu nekk lu am solo. <laughs> xam nga yenn saa peut-être góor ñi dañuy tam bu ñuy lijjanti rek ma ngay ña ngay xalaat ci technologie yoo xam ne peut-être day mais comme yàlla tam ñun may nañu xam-xam ñun jigéen ñi dinañ xalaat ci loo xamante ne dafay dimbali jigéen a des femmes qu'on nii dañu créer application boo xam ne daf lay permettre je pense nga xam marché yi ak prix mhm. euh, lii la ñaata lay jaar ci tel ou tel marché donc genre euh, genre jigéen yooyu noonu ñoo mën a bokk quand même ci concours bi Sonatel Tech pour ñoom jigéen ñoo xam ne Eh, ni ngi ko waxee comme ay jigéen teg ñi ngi yëngu ci mbirum eh, nouvelle technologie mhm. waaye wax nga loo xam ne tamit am na solo am na jigéen ñoo xam ne xëy na amuñu accès nouvelle technologie mhm. waaye ñi ngi amee seen entreprise dëgg la te loolu eh, ñi ngi koy ñi ngi ànd ak ñoom ci suñu programme de promotion du consommé local am nañu programme boo xam ne entreprise GIE yoo xam ne ay jigéen ñoo fa nekk mhm. dañuy def transformation de produits locaux dañ leen di jàppale pour seet naka nañu mën am visibilité en général pour ah. seen produit Euh, communication. Mhm. ba nga xam ni sénégalais dinañu gën a utiliser produit locaux maa ngi gis ni effectivement ci plateau yi am na produit comme Sofia yee nga ciy yëngu yéen voilà. <laughs> alors euh, madame bu weesoo euh, prix bi nga xam ne moom la ñu euh, jagleel jigéen ñi ci entrepreneuriat numérique mhm. est-ce que am ngeen yeneen programme wala yeneen activité yoo xamante ne dañ ngeen ko jagleel jigéen ñi toujours. waaw euh, en dehors de programme Hifoshi bi ma wax am na benn programme boo xam ne ñi ngi koy préparé pour fin d'année bi pour lancer développer benn offre pour jigéen ñi e surtout Orange man euh, boo xam ne euh, pour promotion produits ko parce que ni ma la ko waxee boo xoolee GIE yi def transformation ñi ci ëpp ay jigéen la waaw bëri na bëri ñi ci ëpp ay jigéen la donc ñi ngi seet naka la nouvelle technologie di leen di jàppale ba nga xam ne dinañu gën a am autonomisation Euh, seen chiffre d'affaires dina yokk incha allah. Inch'Allah vous avez d'autres questions. je pense que c'est c'est, c'est intéressant en li ma bëgg xam rek peut-être mooy euh, am na euh, bu ñu demee ci sit bi nga joxe léegi nii mm-hmm. mën nañu xam naka la ñuy inscrire y a-t-il un de téléphone euh, comme man damaa bëgg facilité man ay wootee ma gënal. <laughs> mais comme Pape Cheikh dañuy wax ci ci quand même man je conseille <laughs> <laughs> dem dem directement ci ci page boobu bu fekkee. xam nga comme man damay def dañuy def dañuy def téléservice dañuy bëgg kii seetaan sur le coup mu jël téléphone portable am mu wootee ay information yu gën a euh, yu gën a yaatu jëm ci euh, prix boobu noonu c'est vrai waaye mais bu connecté ci internet rek bu defee orange point sisit point sn p e n f dina am information yëpp mu yónnee candidature d'accord je pense que c'est très clair c'est clair merci madame Dir merci à vous <laughs> voilà ñu ngi lay bu baax euh, kii ay dara tey li ngeen di am na solo jëm ci prix boobu lay ñu tuddee prix de l'entrepreneuriat numérique féminin Sonatel jagleel ko jigéen ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu nouvelle technologie mooy jumtukaay xarala yu bees yi ñu gërëm bu baax madame Rokhaya Solange Ndir alors